léeg euh, xibaar ki ko dëggal moo di njiitu comité euh, suivi euh, soxal campagne commercialisation gerte googe moom sax am na leneen lu mu ci xamle nee na loole bu daal di buñ ci tàbbee dina tax ulier yu ci bari bari am jafe-jafe rawatina itam cos en tout cas loole foofu ñu daal di koy xool mën koy joyanti ngir jafe-jafe yi a wàññeeku ñu teelu ci Ndeye Khady Thiam daal njiitu réew mi nar a yëkkati na jub njaayum gerte gi ci bitim réew la taxoon sax mu def loolu moo di mayoon nag Sonacos Copéol West African Oil ak kayit bu Touba ñu mën a am gerte gu ñu tourné seeni machine lu nu mel doon tax ba producteurs yi doon leen jaay gerte gi bàyyi waa bitim réew waaye tey nag bu ñu naajee yooyee exportation wu gerte Sonacos dina mujjee di dem ba ca tool ya ngir jëndi gerte te bañ cee di di xaar producteurs yi di indi gerte gi ci biir usines yi producteurs yooyu sax nag jàpp nañ ni jamono ji ñoom ñoo ci gën a profito ndaxte mën nañoo tànn seeni jëndkat ñuy fàttali fàttali rek ni njëgu gerte gi ñu ngi ko àpp ci juróom fukk ci jamono joo xamante ni acteur chinois yi ñoom dinañu jënd ba ci juróom-ñaar fukki dërëm loolee tax nag ba Sonacos war a xoolaat doxalinam ca na muy jotee matière première bi di gerte lu ko moy dina daal di ndërmeelu ak ñaari junni liggéeykatam rawatina ci jamono ji ñu libéraliser marché bi ci pàttali ba léegi rek réewum Sénégal daal dina dàbbalaat ci atum 2019 accord yi nga xam ne si woon na kook Chine ci atum 2014 loolee sax nag tax tey ji Chine nekk jëndkatu gerte bu njëkk fii ci réewum Sénégal Ndeye Khady Thiam Tall jërëjëf ñu wax uh, ci uh, njëgug uh, diwliñ wala diw tiir bi ñu ne dafa daal di diw liñ bi nga xam te dafa yokku ndax bidon bi nga xam te moo soxal ñaar fukki litres yi doon jar lu toll ci ñetti junni léegi mi ngi jar ci ñetti junni ak juróom-benn téeméer mu mel ni kon yokkute googe ki koy dëggal bokk na ci commerçant ya ne ca Mbour ci ab bi mu ci defal moom Aline Badro Sonko. bi nga xamante ne moom lañ nemmeeku fan yi ci litre dëwlin bi fii ci diwaanu Mbour commerçant commerçant yi di ko dëggal même au niveau de Dakar nga xam ne fa la ñuy jëlee diwlin di ko indi fii au niveau de Mbour dafa seer soo ñëwee jëlee ko foofu plus de euh, transport euh, day dikke loo xam ne euh, soo ko jaayee consommateur bi day xaw a seet ci moom parce que mënoo jënd diwlin ay quatorze mille treize mille cinq cent dans quelques jours trois jours nga dem ñu ne la ngi jaay diwlin xam nga loolu day metti bu sukkandikoo ci borom njaboot ñoom nag jaaxle nañ lool ndax jamono ji nga xamante ne xaalis kenn gisatu ko ci dëkk bi waroon nañ wax leneen lu dul yokki njëg waaw diwlin gi moom yokku na te ñaari fan ñett yu ne dañuy yokk seen loxo léegi mu ci dix-sept mille cinq cent litre diwlin di jar ah metti na de wax dëgg fa yàlla metti na nguur gi ñoo ñu war a jàppale bu baax a baax a baax a baax. ci fàttali litre dëwlin bi daal nañ koy yokk butéel 20 litre bi nga xamante ne moo daan jar 15000 francs léegi 17000 francs lañ koy jaayee maanaam 2000 francs moo ci tegu. ñu àddu wax ci euh, kàddu yi euh, chef service régional commerce Dakar bu ñu sukkandikoo ci euh, Serigne Diaw nee nañ daal lu jëm ci yokkute googe dëggal nañu ko waaye nag li ko sabab bokk na ci ak joyante gi ñu nemmeeku ci njëg li ca la muy jar ca biti réew mu mel ni kon noone lañu wax na ne diwliñ bi nga xam te mooy jógee ca Malaisie ak Indonésie diwliñ googee képp lañu wax ne moom moo cher ñu teelu ko ci leeral du diwlin en tant que tel ci boppam moom mooy yokk xeetu diwlin la ci diwlin yi muy huile de palme bi ma raffiné boo xam ne moom mooy jógee Malaisie ak Indonésie boobu moo jóge ci quinze dollars dem ci vingt cinq dollars donc ñooñu bu ñu yokkee automatiquement dafa war a ressentir ci prix bi mais ñi nga xam ne ñoom ñooy indi diwlin tam am nañ yeneen marché yoo xam ne mën nañ fa jëli diw amul benn problème ci stock yi Haj Mansour mi ngi noonee njëg li kon euh, ñoo ko déggandoo nee nañu euh, bu yokkee sax euh, yokkewul nun ko foogee ndax beneen xeetu diw li gis incohérence bu ma jaaxal bu doon jar quinze mille dollars ñëw ci vingt cinq mille dollars par rapport ak augmentation bi am ci li mu doon jal jar fii muy guttu vingt litres bi doon jar quinze mille ñu koy jaay dix sept mille deux mille francs gis nga différence bi ci hausse bi am cest à mooy amul cohérence kon li ñu layal noonu ci yokkute ci diw bi jógee Indonésie ak Jakarta est-ce que réew yooyu ñu ëpp sax ci li suñu commerçant yi dafa importe diw di indi fii góoma loolu li gën a yenu maanaam mooy li jiitu woon mooy affaire gerte gi nga xam ni Sonacos dafay produire diw bu doon participer di approvisionner marché bi ñu xam ne échec nañu ëllëg si biir ñu wax sénégal yi ni leen li tax amoo leen diw parce que baykat yi nanguwuñu woon a jaay Sonacos diw loolu mën na nekk benn prétexte beneen bi ci des mooy euh, ci wàllu diw googu ñu wax noonu mënoo ñàkk ci yegg egg ci ñàkk contrôler marché ba nga xam ni benn parti ci réew mi mel ni Mbour moo yokk benn parti ci dakaar yokk beneen parti ci Dakar yokkuwul te ñoom ñëpp ñuy contrôler benn marché bi di xool lu ñuy distribuer ak ni ñuy jaaye ci dëkk bi loolu mooy état boo xam ni aw askan daa mel ni moo dagg kenn du ko jàpp amul contrôle bu mujj bi fi may jeexale Mouhamed mooy dama seetaan njiit Sénégal comme ci papier Ndeye Khady Thiam bi mu wax ni Sénégal li nekk objectif am mooy am ay unité de production et de transformation yu ndaw yoo xam du nekk yu ngand comme Sonacos ma ni mais président Macky Sall kon xam na lu xew xam na ni pour ñu mën a gérer gerte gi lépp yem ci Sénégal yokk koom-koomu Sénégal gerte gi contribuer ci koom-koomu Sénégal kon nekk te xam na li mu laaj mais lan moo tax defuñu ko moom moment bi ñu wax génn nañu ay milliards alors que am na ay petites unité yu demandé wul plus de vingt milliards non plus de vingt pour ay ndaw liggéey ci nga mën cee fii ci Sénégal donc y un problème ñi ñu jiite xam nañu liy defal développé réew mi mais lu tax teguñu ci seen tànk foofu loolu mooy question bi. exportation la ñu wax demet waaye huiliers yi wax.